Pokola a ngi noonu di sotteeku am na lu mu sol Pokola a ngi noonu di dem ci diggi géew bi ñëpp a ngi moom xolo booy sil Pokola wa ngay dem moo noonu di dem ci diggi géew bi Adama kan dem ci Dame Suger Pokola a ngi noonu di dugg góo noonu nekk noonu ñëw na ci moom déggal góo daam kattal ma ndéem bu baax. man la doon a moom kattal ma noonu. daam na. moo ngi ca dernier bouteille la. ñoo ngi wax ak moom. waaye Pokola dugg si ci diggi géew bi. daa may noonu ci mukaal yi di def dernier bouteille yi. daam. Dame Suguer numéro 2 moo ngi ci dernier butéel yi Dame yaa ngi noonu di dem ci diggi géew bi am na fas bu mu jël lan lay def ca fas ba. dox ci diggante Pokola ak Dame Souguére numéro 2 ñoo ngi gis Jules ci biir Pokola ak ci biir géew bi Dame Souguére ñu koy sotti gàllaaj ngi ci biir. ngeen ko de di feeñu Dame Suguer Dame Suguer a ngi noonu Dame a ngi ci préparation yi ba tey Pokola noppi na daam noppi na waaye daam bëri dafa mel ni am na luñ ci diggi géew bi wala boog lu nu koy wax Dame daam am na benn morso bu mu teg seen diggante Pokola am na lu mu siw Pokola suuna benn sunguf Pokola am na benn fas bu mu yor na ko seen diggante daam yëkkatiwaat na mooso bi tegaat ko seen diggante Pokola yëkkatiwaat na fas bi tegaat ko seen diggante Pokola daam sugeer arbitre bi baa ngi laaj ay jugeem journée photo production Dame Su Gueye wàcc na il est 19h52 dimanche 17 Pokola cokkaas na léegi Dame fayu Dame Su Gueye Pokola Dame Su Gueye moom la ñu jàkkaarlool Pokola moo nu woon ginnaaw eh dóor ñoo ngi dóorante waaye benn dalagu ci Dame Su Gueye Pokola Dame Su moo xaw sut waaye wàcc na ko tolloog Pokola Pokola nee na ñëpp ne dañ ne ma wax naa teey Pokola Dame Souguer xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi booy xool mbokk yi seen taxawaay daa mel ni ki nga xamante ni ni mooy Pokola moo xaw ëpp tuuti laf Dame Souguer daw na jël dóor eh ñoo ngay xeex ba doomu daan du ci am ñoo ngay xeex doon na ko kaaw na eh daam doon na ko mu daanu eh Pokola doon na daam Sugee mu daanu Pokola doon na daam Sugee mu daanu daam Sugee dafa xeex Pokola du ko dóor ba mu daanu Pokola du ko dóor ba mu daanu lay lele la eh Pokola daam Sugee doon na Pokola mu daanu daam Sugee Pokola doon na ko mu daanu. Pokola door na Dame Sougué mu daanu Pokola dafa forcer xeex Dame xeex bi Dame dafa forcer xeex bi Dame dafa ngi noonu